24 hectares nous avons mom ni moom lañ jox foncier c'est intégralement dans le nest pas donc périmètre communal n'est-ce pas de Sindia ci la Ngom engagement Babacar Ngom dara dara ñun ku ñuy indil ay nous Nous dañu indil ay soxlu wuñu xaar ci ba commune jox ko 224 hectares yoyu lolu defu ci 225 yoyu defu ci dara. defu ci dara tey ji soble la fay béy te mom dafa waxone ni fay délocaliser usine sédiment bu nek kermassar indi ko samp ko fi jeunesse su Jilaa yëpp ci liggéey département Mbour yep, di ci gis sen bopp lolu nak defu ko tey jii soble la fay béy n'est-ce pas mok njabootam ak ñu mu ñom ñom ñokoy ñom ñokoy ñoom ñun gisuñu suñu bopp gisuñu suñu donc il a fait ce qu'on appelle un détournement d'objectif détournement d'objectif boobu nak ñun ñu ci 224 hectares aussi pratiquement donc un titre foncier lool ñun andu ñu ci té dinañ ko attaquer nak ànd ñu ci wara andal yépp ba yalla defal nañu si ndam inshallah alhamdullilah alhamdulilah. en 2013 en 2013, lañ def la manifestation. en 2013, def manifestation pour contester n'est-ce pas donc euh, délibération trois hectares parce que lolu amul fenn ci àdduna ben benn adama nga dagal ko trois hectares quel que soit le projet lolu jila ànd ci. waxaatuñu nag léegi délibération légui titre foncier la yor lolu nak moy gravité bi. C'est ça qui est grave. Et la, le, le, le, titre foncier a été signé par voilà, le président voilà, de la voilà, République donc maanaam titre foncier boobu Macky Sall moko ko signé. Macky Sall donc le seul privilège de Babacar Ngom c'est quoi c'est d'être n'est-ce pas donc l'ami c'est l'ami de Macky Sall motax tax défal ko lool. mu jël suñu suuf jox ko Babacar Ngom défal ko ko titre foncier loolu ji la am ci. ñun dañu bëgg Babacar Ngom titre foncier bi mu am légal parce que amna lo xamanteni xamante ni nit mu am. ci biir dëkk 300 hectares ak titre foncier mosuñu ko gis ci monde entier. ci diiru ñetti at xam nga ñun lan lañu bëgg Babacar Ngom joxuñu suñu alal ñun ñoko mom moom.

mom nanu abal suñu no mom suñu suuf nanu ko delloo doy nañu sëg mom moom. abal da ngay sept heures ba ba ba cinq heures nga soga wacc jigen yi la gànnaar rey ak goor yi du len fay. léegi ñepp a yeewu sëñ bi fu mu toll nii jàng école fi ko fi nax rek mom la neex jamono bi ñi nax jamono bi ñuy nax suñuy maam du jamono ji ni bu dee benn fan toll nañ ko ba école kon fu mu toll ni tay tay tay luñ wax tay ñu d'accord